baa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ tuubaa ko xir la ci gan tuubaa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ tuubaa ko xir la ci gan saarjim bismillahi rahmaan alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a nga ñu bàyyi xel ci waxtu ne saa ne ci fii ci diwaan kër Serigne Touba gi ci daayira bi nga xam ne moom mooy Touba li Habdin ànd ko daayira Nooru daayira ni ñu tudde leen diwaan ñu ne ci kër Serigne Touba gi waaye ci ndigal Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifa sar kul murit waaye itam ñu ànd ko Cheikh Bassirou Mbacke mi nga xam ne moom la sëñ Sid boole ñun waaye mu boole Serigne Abou moom Serigne Cheikh Say Mbacke mbokk yi ku ne xam ne nag euh, tey jii moo nekk juróom-ñetteelu fan ci weeru safar wi dëppook dimanche euh, le 29 octobre 2017 ku ne xam ne mbokk yi nag Euh, liggéey bi ni ñu ko doon baaxoo def waxtu ne saa su ne tey ji leen dikkaat ñu fas yéene présenté waat tey ji li nga xam mooy seen journalu bis bi incha allahu taala tey ci wàllu euh, commission yi nga xam ne la ñu war dalal danañ jël commission hygiène commission hygiène nag mooy commission bi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu set ci biir kër gi ci salle yi nekk ak salon yi ak mbooleem chambre yi nga xam ne nekk na fi ak lépp loo xamante bi dafa war ci kër yëpp ñoom ñoo ko yor euh, ki ko jiite di nekk Serigne Babacar Ndiaye incha allah taala ci kanam tuuti dañ ko dékk suñu micro laaj ko seen liggéey boobu ana nan la demee mokk mission bi nga xam ne moom la ko seqal waaye bu ñu noppee incha allah taala daan dem ci sëriñ Abou Mbacké moom sëriñ nga xam ne euh, moom itam tey jii nga xam ne moom moo jiite euh, liggéey bi euh, nekk suñ kanam incha allah taala daan waxtaan ak moom ci li nga xamante bi moom mooy liggéey bi nekk juróom-ñetteelu fan fan la toll tey fi ñu toll nii loolu nag Euh, tey ci Kantun incha allah lay am waaye bu noppee itam daan daal suñ benn gan bu am solo euh, di borom xam-xam di Serigne Serif Bousso Serigne Serif Bousso nag bu ñu ko bëggee xam moom mooy euh, moom Serigne Gédé Bousso ibnu Serigne Njaañi Bousso ibnu Serigne Mbacke Bousso Serigne Serif moom dana ñëw waxtaan ci ñun ci jikko yi. Ah, ci yenn ci ci jikko yi nga xam ne moom la war a roy ak jikko yi nga xam ak jikko yi Seex Xaadim ngi nga xam ne tey moom la ñu waajal ci bisam bi tedd bi kon loolu ñoo ngi leen di jox dig daje incha allahu taala bu ko defee rek ci kanam tuuti ñu ànd dex dig daje incha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. góor ak jigéen ma nga ndaw ñëpp nag lan woo màggal si leen màggal Tuuba ga ñëpp a ko miin góor ndaw ñëpp lañ woo màggal si leen màggal Tuuba ga dix-huit ci weeru safar mooy bis bis la bu ci yàlla ak yonen baak bamba teewe ko ren ku man ñëwal ku manu lit ba foo mën a yem ne bis ku cey góor góor lu am ca lu duun bésum ngëneel la bu ànd jàmm bis la bu jaamoo ko sant ka berndeel gan ya ñam yu dagan bésum ngoneel la bu ànd ak jàmm bés la bu nuy jaamoo ka sant ka berndeel gan ñam yu dagan ñu ngi lay nuyu di la ziar eh, di la sant ci dalal bi ñu dalal di la ñaanal yàlla yàlla defal la gudd defal la wér dooleel la te jàppale la ci mission bi nga yoro mission bi Sénégal yépp xam nañu niñ ci taxawee parce que olof dafa wax ni ku wax feeñ te dañ lay déglu ci rajo yi ci télé yi buñ la dégloo nag xam nañ mu ñuy wax xalif général des mourides dañuy wax ni yow yaay porte parole mais ñun dañu gëm ni du rek porte parole yow yaay porte xalaat yaay porte jëf yi comme ni ko président ñaa waxee léegi gëm nañ buntu Touba buntu sëriñ bi yow la ko yàlla jox nga taxaw ci taxawaay bu rafet bu mat loolu defe naa Sénégal yëpp mën nañ ko seede Sénégal yëpp mën nañ ko seede te ñun du ñu wax lu ñu gëmul te lu ñuy gis la ñu wax sa taxawaay rafet na am na solo ci réew mi waxuma rek ci murit ci réew mi yépp yal na la yàlla gën dooleel ci taxawaay boobu mission bu jafe la mais yaa ngi koy doxal nu mu ware loolu mën nañ ko seede parce que gis nañ ko dégg nañ ko te ñëpp seede nañ ko Sénégal donc ñu ngi lay sant ci loolu ñu am liggéey boo xam dañu ko dénk muy comité boo xam ni day xeex lépp luy garab bu baaxul ak ñëpp ñoo xam ne ñi dañuy def liggéeyu pharmacien te du seen métier liggéey boobu comité bi nga xam ni moom la ñu teg comité bi état bi yëpp la maanaam bu njëkk ministère de la santé lañ daan wax ne moom ak direction de la pharmacie et du médicament ñoom ñooy xeex loolu léegi nag dañu teg comité boo xam ne bii service yu bare bare ministère yu bare ñoo ci bokk assemblée nationale ci la bokk conseil économique et social ci la bokk police gendarmerie douane ministère du commerce ministère de la santé association consommateurs yi ñëpp a ngi ci biir comité boobu donc comité la boo xam ne dafa dajale ñëpp te liggéey bi ñuy liggéey njëriñu askan wi yëpp la ndax problème bi am fii Sénégal moo am feneen moo am Burkina moo am Côte d'Ivoire moo am fune muy façon garab yooyu xam ni baaxul te léeg-léeg muy lor nit ci loraange yoo xam ni yu feeñ la am na yoo xam ne feeñul mais am na yu feeñ donc xeex boobu ñépp ci jàpp loolu tax bala ñu ci tàmbalee def dara ñu ne na ñëw Touba parce que fii mooy Sénégal fii lépp lu représenté Sénégal ak sénégalais mooy ku nekk ci réew mi ak ku nekk bitim réew mën nañ ni càllale gi Touba donc mënuñu dem fenn te commencé guñu fii donc looloo tax ñu ñëw seet si leen euh, xam nañ ni bu ñu waxee ak yow xalif bi la waxal sëñ Touba la ñu waxal euh, murit yëpp la ñu wax ñu ñëw seet la ñaan la yëgal la d'abord li ñu bëgg a def ñaan la ci ndigal wax la nga ñaanal ñu yàlla defal ñu mission bi euh, ñu mottali ko li nga xam na ko ni ñu yaakaare xam ni ci euh, wér-gi-yaramu nit la euh, yàlla may ñu mission bi ñu mën ko def na mu ware loolu tax ñu leen di ñaan ngeen jàpp ci yaakaar nañ seen ñaan yaakaar nañ seen jàppale ak seen ndimmal parce que gëm nañ ñi problème boobu Sénégal yëpp la am nag du Touba Sénégal yëpp la am garab yooyu Sénégal yëpp la am mais dañuy ñaan Touba ngeen jàppale ñu bu baax ci liggéey bi parce que li ñuy def fii moom la ñuy def feneen donc loolu mooy la mission bi xam ne dañu ni nañ def délégation ñëw Touba yàlla def ñu am chance nga recevoir ñu te boo ñu recevoir xalifa bee ñu recevoir Touba yëpp a ñu recevoir donc dañ lay sant ci loolu di ñaan nga ñaanal ñu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di delloo am nuyu bu baax di leen sant te leen gërëm di rafetlu itam ñëw gi ci dox bi ngeen di dox ci lu soxla yite nit ñi ak lu gën a rafet seen wu nekkin euh, dégg ngeen dégg nañ li ngeen wax bu baax ndax am na luñ ci yëgoon. xam naa li ci am sol la comme dañoo ne ci waxtu bu màggal euh, li ciy gën mooy ñu bàyyi ba màggal gi weesu fii gàmm gi ñu xoolal leen beneen bis boobaa ñi ko seq mooy ña ci nekk ñu woo leen ba xam dëgg-dëgg yi ak li ñuy wax nu mu demee door cee mën a joxe suñ tontu laaj ci ndigal sëñ bi loolu lañ cee mën a wax liñ ci xalaat waaye lépp luy defar moom sëñ moom loolu lay def waaye nag lu mu doon rek ñu bañ koo euh, teg ci dégg rek daal tontu fi sansa waaye faaw nga lijjanti ko ba xam ña ko seqi topp ba ñu waxtaane ko ba mu nekk njariñ ci yéen ñëpp incha allah waaw nga ne la bu diine yi dund mbég di ca am jolli ñuy tas kaamil ba junni bu yoon am ñuy sikar ñii di addis ñii di salaatu nabi ñëley na mantikoo ñiy jox nit ñam ak ñooy jaay di doxle sa fuur say korne daam du moroom kom koom bi yëpp di dox Touba du Ndar du feneen. def mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek ñoo ngi jàkkaarloog waa commission hygiène ki ko jiite Serigne Babacar Ndiaye di ko am Pastef ci liggéey bi waxtu wu nekk saa su nekk ñi ngi gis euh, waxtu bi teel a xëy lool waaye mboolem li nga xam ne moo ne ci kër gi ci ay bâtiment bari lool waaye li fi nekk ci ay néeg waaye ay salle kenn xamul li mu toll ak lal yeeg lu ci mën nekk euh, ak jëmi yëpp. waaye mu yor lépp loo xamante moo jëm ci wàllu woowu euh, waaye nag tey dañ koy laaj euh, moom sëñ Babacar euh, maam nan lan la ñuy wax ci commission bi nga xam ne moom la jiite ci xerañte gi nga xam ne moom la ñu yor ba gan yàkkamti yàkkamti bu accès dina nekk ci sant bu am solo bu bu bu yaakaar bu baax a baax kon sëñ Babacar lan nga ñuy wax ci seen commission boobu. ziare mbokk taalibe yëpp te di leen ndokkeel ci màggal gi ñuy jublu nga xam ne suñu yitte yëpp mooy màggal di sant la sëñ bi suñ borom. di sant itam ci li nga xam ne moom lañu jagleel muy hygiène maanaam set setal dégg ci taarix ne lu sëñ bi fonkoon la ba ci taawam sax sëñ Modou Moustapha dégg naa bu ñu daan set setal grand buubam la daan tàllal naan luñ buub nañ ko ci defal wan nag bu ñu ko jagleel ñoon dañ ciy sant fii nag di kër sëñ Touba di kër mag moom doon barab boo xam ne lépp luy tiyaabu ak kii dañ ko ci sàkku te yaakaar ko fi kon sant nañ daal bi nga xam ne suñu borom jagle na loolu muy foo xam ne itam dafa xaw a yaatu néeg yi dañoo xaw a bëri am na 32 chambres ak lu mat 20 salles ak salles yu mag 5 ak am yoo xam ne ay toilettes yoo xam ne toll nañ ci 30 ñoom tam bu ci nekk saa bu ñu xëyee à partir de 8 heures du matin dañ commencé set setal lépp muy douche yi muy couloir yi muy chambre yi lalaat li ñu war a lalaat lépp désinfecté maanaam rey yoo wala weñ yu ca mën a nekk. ko defee itam daal di def odeur bi nga xam ne mooy xet yu neex yi war a nekk ci néeg bi ñoom seen ba gan gu nekk daal boo dikkee da nga yaakaar na sa kër nga nekk baa li nga fi fekk gënal la nekk sa kër moom daal mooy suñu yéene ca noonu lañ koy jéem a defee ca yaakaar ne matalal nañ ko saa bu ñu xëyee itam ngoon gi itam bu fekkee ne gan yi ñëw nañ buñ noppee añ ak ñoom seen ku xewloo pare néeg bu nekk du ñàkk ay ruus si teg ak tóor yu fa nekk daal di yónniwaat équipe bi ñu duggaat ci néegi yi defaraat la ñu war a defaraat moom timis di bëgg a jot néeg bu libre ñu defaraat ko lalaat ko ba gan bu ñu bettee ci guddi gi itam mbaa mu teel a ñëw dana fekk lépp entre ci kàttan Sëñ Tuubaa noon daal lañ fi nekkee doore ko ci premier safar bala quinze ci ndiga ci njiitu suñ sang sëñ Abo Madiana Mbacke ak suñu sang suñ Abdou Bass Abdou Khadir Mbacke di sàkk ci ñoom ngërëm ak ngërëm Cheikhul Khadim ah, jërëjëf uh, sëriñ Babacar Ndiaye kaddu yi am na solo lool li ñu leen soxla woon dinañ ko laaj ci seen commission bi indi ngeen lépp tënkal nga lépp lépp am na solo Euh, waaye nag euh, comme équipe bi nga xam ne yàlla dogal na moom nga àndal euh, yéen nan ngeen nosoo ci équipe bi ci nan ngeen nosoo ba nga xam ne gis nan ñu koy ñi ngeen ànd liggéey set gi nga xam ne moom la ñu àndal ak yar bi ak ak ak ak ak ak ak ak li nga xam ne soxla nañ ko ci doomu aadama nan nga def ba am équipe boobu ci yan anam nga leen daal tànn gi moom li ñuy wax mooy sëñ bi mooy tànn mbir taalibeem bu ndigal xasee jibre daa mel ne bu ñu ër foo ku ci nekk sëñ bi la waajal fa nga jógee soxna yi ma ci àndal yàlla xam na ne maay roy ci ñoom ak taalibe sax ak euh, Pastef su nekk am ay kër la ñu yor war a xëy sang seeni doom yóbbu leen école war a def lépp mais teqtalu leen ci leen ñenn ñi dañuy aye war a togg wala dara mais ñoo ngi organisé woo noo xam ne ku ci aye sa moroom remplacé la matale lépp ba kenn du manqué loolu ñoo ngi leen koy sante di sant seen ak Pastef ci di ko seedeel sëñ bi itam ñu am Pastef lañ te vraiment seen liggéeyu kër rek waroon na leen doy ci jege teg màggal gi mais sentiruñu ko ci kër gi vraiment seen Pastef doy na waar te teel geeg lépp a ngi ciy nekk ak guddee geeg ñëpp ñuy jéggulu seen i borom kër yi nga xam ne itam ñoo leen may autorisation ñuy liggéeyal noonu sëñ bi. jëf sëriñ Babacar Ndiaye cant nan la sëriñ Touba mi ngay liggéey dafa am fay ñimul bor ca gëm na ne dana la fay bu baax a baax incha allah taala kon euh, dañu fay mbooleem ñi nga xam ne liggéey sëriñ Touba ndax moom mooy ki nga xam ne tey bisam bii ñu jublu di ko di ko waajal ci sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké jàppale ñu baax baax ci euh, anam bépp boo xamante moom lañ koy waajale ba liggéey bi gën ñoo yombal waaye mbooloo sëriñ abo moom sëriñ Cheikh Mbacke soxin bu nga xam ne dafa nekk ko bëgg mbir mi ku safoo mbir mi ku wàcce boppam nekk ab taalibe waxtu na saa su ne dama ko noppi di wax ndax dama koy gis ci moom wax dëgg mu nekk ku ab royteef euh, mu jël équipe bi ànd ko ñun ci ànd bu ànd bu xereñ bu ànd bu bu ñëw kon loolu dañ ko dañ ko ci sant moom itam bu baax ba di gërëm baax baax euh, di sant mboolem nga xamante ne ñoo ànd di seetaan seen site internet Istikhama li nga xamal rek fii la ci kër gi kër sëñ Tuubaa résidence Xadim Rasul fekk jumaa ji salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kéemaan ci kéemaan la bés bii loo fi gis di ko yéem ba foog ne loola la boo geesoo ñu jox leneen kéemaan ci kéemaan la bés bii loo fi gis di ko yéem ba foog ne ñu jox la leneen alhamdulillahi waxda thumma salaamaani ala man laa nabiya baada ixwata almustamiin alkiram fi kulli makaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fépp fu waay mën a nekk ci àddina bi ñu ngi fii ci kër Sëriñ Tuuba ci kuréel gu ñuy wax diwaan ëmb liggéeyal Sëriñ Tuuba di tàmbalee benn fanu safar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci suñu commission culturelle bi nga xam ne moo am ëmb njàngam alquran mi ak waxtaan lenn ci ay tomb ci lislaam waxtu wu nekk bis bu nekk ñu tànn kenn ci gan ñi nga xam ne dañuy jàngale njàngaleem lislaam di ko jaarale ci dégginu Cheikhul Xadim ci diine ak ab yaram tey jii nag ñu amati mbégte dalal koo xam ne ci yoon wi la bokk muy Cherif Moulay Bousso wala Serigne Cherif Bousso di set ci alxaaji Mbacke Bousso al alimul allaama koo xam ne taxawaayam ci yoonu murit kenn dutu ko sikk sàkka wala sax bi sifa ama ci taxawaayam ci lislaam ak ci xam-xam sëñ mbaki busu kenn dutu ko fàtte ci lislaam ak ci xam-xam fii ci biir réew mi ñoo am mbégte nag ci dalal ko muy jàngalekat di gëstukat di ko xam ne yàlla xéewale na ko mu bokk ci ñi jànge ci dëkk bi ba wattu téere bi jàng fi lenn ci ay xam-xami lislaam yi génn fàggu ji xam-xam dellusiwaat eh, di liggéeyaat ci xam-xam itam ci lislaam ci atu Cheikh Xadim rawatina kër maamam gi mu bokk muy kër alxaaji Mbacke Bousso di këru xam-xam mu nekk ku fa ràññiku ku jàmbaare koo xam ne yitteem yëpp mooy tasaare xam-xam ak lislaam ñu am ci dalal ko tey fegoo ci jataay bi nag sëriñ Mamour Diop di seet ci sëriñ Massamba job Sam moom itam mbokk ci kuréel gi ak suñu conseil Serigne Modou Bey nga xam ne mooy itam kenn la ci mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk ci jàpp ci liggéeyu diwaan bi eh, ci ay xalaatam eh, kilifa yi boole ñu ak moom ci taxawaayam ak yitteem ju kawe. su ko kon ak El Hadj Abdoul Karim Seck mi nga xam ne tey kenn ku ne xam na ne yitteem ju ci liggéey bi ak ci mbooloo bu ràññiku la lu ràññiku la ñu dénk ko itam lépp lu jëm ci wàllu communication ak jotal li fay génne ci xam-xam ak ci ay xibaar muy koo xam ne wax dëgg yàlla. moom itam jàmbaar la ci liggéey bi su ko defee ñu am mbégte tey dalal sëñ Cherif Bousso duñ ko présenté buñ nee ci kër sëñ Mbacke Bousso la bokk ab sët la ci sëñ Mbacke Bousso rek loolu doy na sëkk kon daal ñi ngi am yaakaar ne li ñu yaakaar ci moom muy waxtaan ñu tomb bu ñu wax euh, atharul axlaaq fi l mujtama taalim euh, euh, taalimu Cheikh Xadim namoozajan maanaam jeexital gi nga xam ne jikko yu rafet mën na ko def ci ab société mu jël ci exemple nag njàngale mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa jàngale na ko ci xam-xam ak ci lislaam ak ci jikko jëlee ko ci alxuraan sunna ak ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa te damay wax sax nag njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom mooy lislaam rek mooy xam-xam kon incha allah duñ ci guddal dañ koy bàyyee kàddu gi incha allahu taala acheikh fal tatafaddal maskura bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi jàkkaarloo ñun ak ñi ñuy teewlu foo waaye mën a nekk comme ni ko suñu mbokk yu baax yi jiitale rek lii leen la ci jotaayu xam-xam yi nga xam ni kuréel gi ñu ngi koy taxawee ci weeru tedd wi nga xamante ne nii bokk na ci athar at tayiba yi nga xamante ne nii Cheikhuna Cheikhul Xadim bëgg na ko mooy génne xam-xam ak jariñoo ko ndax daa mel ni mbir mi bëri na ay abaat mooy bëri na ay dimension waa jot naa ne wàllu culturel bi ak xam-xam bi benn wàllu ëpp ko ci solo ci li nga xam ne mën naa jëriñu société bi moo tax ñi nga rafetlu lool jataay xam yi nga xam ni romb na fi ak yi nga xamante ni moo fi ñëw ngir taxawe li nga xam ni moom la Serigne Touba bëggoon ci dëkkam bi te mooy gindee ak irshad ak tawjih ginnaaw bi nag comme ni ngeen ko waxee rek euh, ñu tànnoon ab thème boo xamante ni nii ci tënk la doon xam naa mooy jikko yi ak li nga xam ni moom la am jeexital ci mën a defar société beeg yu mel noonu waaye tamit euh, doxalin wa ci Serigne Touba doon doxale ak ni mu ko doon euh, pratiquer ci côté boo xamante ne nii moo ëpp njariñ ci itam nekk na loo xam ne exemple la ci ñun waa euh, islam waaye exemple la ci waa Sénégal rawatina waa Touba. su ko defee kan axlaax yi mooy jikko yi nga xamante ne nii dafa nekk loo xam ne ab mabda la mabda suñ ko waxee mooy principe mooy ab fondement boo xam ne mënut a ñàkk ci islam ndax moo fondé moo fondement diine moom jikko yi. ndax ku ne xam na xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxoon ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq nee na eh, dañ yoon yónni ngir ma mottali li nga xam ne mooy makaarimul axlaaq mooy lépp loo xam ne jikko ju rafet la loolu kon dafay nekk lu dàqu ci islaam loo xamante ni ni munoo tudd islaam ca tuddoo jikko jikko nag ci gàttal am mbir la moo xam ne dafay nekk ci bakkanu nit dafay nekk ci jëmmi nit ki ba pare nekk lu ca dëgër loo xamante nii moo koy orienté di génnee jëf yi buñ bëggoon a wax jikko lan la mooy am mbir la moo xam ne dafa sax ci nit ki waaye dañ ko caa saxal bu buñ nee raasixa bu ca dëgër mooy boo xam ni kon dañ ko caa saxal liñ ci njëkk a déggee mooy kon jikko manees na koo fàggu maanaam nekkul ni nit rek mooy day xëy rek mel neen waaye maanaam su ko takkal lu fee jéem ko rek dina mel ni ñoom comme ni ko borom xam-xam yi waxee ni bu la nit yéemee jéem mel nam mel ci ay jikko di nga mujj mel ni kooka kon am ne dafa nekk ci nit ki waaye dafa mel ni moo koy orienté nañ ko defal wala bul def kon jikko googu loolu ci gàttal loolu mooy jikko waaye jikko nag euh, mooy li nga xamante ne nii moo gën a feeñ ci li nga xam ne moom la nit di gis ci doomu aadama kon loolu dina aaja ñu koy nàmmulee lekk di ko defaraat bu baax a baax ndax masalan nit ñi bu ñu lay xool du ñu mën a gis lan mooy sa pas-pas yow sa pas-pas mënuñu koo xam waaye sa jikko yi ci kaw ak ni ngay doxale ci lañ mën a àttee wane ni yow kat nangam nga wala nangam waaye suñu doon xool ci suñu réalité islamique bi nii ci boppam ah jikko ah, ni ko islaam tege ci kaw ak itam li nga xam ni mooy waaqewul xaal mooy situation bi est-ce que maanaam méngoo na wala méngoowut loolu mooy laaj bi maanaam ah, diggante théorie bi ak pratique bi ñu xool ci wàllu jikko ba xam méngoo na wala méngoowut su ko defee dafa mel ni eh, lépp loo xamante ni nii rek Euh, lu mën a defar la loolee mooy jikko di lu baax waaye nag euh, lil asafi shadid mooy léeg-léeg di ñëw ci benn mujtama boo xam ne ñu tuddee seen bopp mujtama islami mooy société islamique nga gis fa ay xeeti euh, jëf yoo xam ne wala ay xeeti doxalin yoo xamante ne nii boo amee am kii tuuti laaj ndax ñii ay jullit lañ dëgg-dëgg wala boog am na lu manqué ci ñoom ndax boo doon dellu ci téere yi ak li ñuy wax ci xeeti jikko dañ ci ñëw ci kanam ak maanaam lañ ca dël ak la ci yonent bi wax ak la ci alxuraan wax ak namusa ji nga xam ne am nañ ko ci ay exemple yu leer nañ dafay xaw wuuteeg lool léeg li ngay gis ci société bi ñu koy dund ci wàllu euh, doxalin kon loolu tamit lu jar a critique la lu jar xolaat la ba xam ñun est-ce que taxaw nañ fa ñu war a taxaw ci wàllu jikko wala am na lu des su ko defee li des bokk na ci fi muy feeñe mooy li ñuy wax masaahiru euh, maanaam suu il axlaaq mooy li ngay seetlu ni ay phénomène la yoo xam ne foo ko gis ci ab société rek xamal ni jikko ya day am na lu ca des bokk na ci li borom xam-xam yi tudd lu mel ni nar mooy wax lu amut ci bi ay shaklin mel ashkal comme ni ko Sëriñ Tuubaa faram-fàcce ci ay téeréem ah ci wàllu fiq discuter ba ya ca baax ya ca baaxut bàyyee ca xulaasatul kalaam lam ca mujj wax rek mooy moom nar moom benn baaxu ci kon lekk wax lu xamante ne ni bokkut ak li am lu metti metti rek boo xamal ni mbir ma loolee bokk na ci yàqu jikko ndax tam nit ki tamit su amee conscience boo xam ne jikkoom mi ngi koy orienté ah lu dëgg metti metti dina ko wax xëy na mën na ko sutural wala mu euh, rabbate ko doo xamante ni nii du gaañ kenn waaye dëgg lay doon waaye lu mel ni wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajoon nañ ko ne ko kañ la yawmal qiyaam di taxaw mu ni isaa duyaat al amaana fantadir saa mooy suñ demee ba nit ki amatul benn responsabilité amatul benn kóolute waaye tamit amatul benn li ñuy wax amaana ca amaana di baat bu riche di baatu arab boo xam ne mooy lépp loo xam ni loo war a saytu la rek loo war a taxawee bis boo demee ba jégatoo di am nga ci responsabilité boo war a taxawee moo xam ci yar njaboot gi la moo xam ci li ngay gis ci mbedd bi la tamit ay yàqu-yàqu la moo xam li ngay dégg ci média yi la moo xam ci doxaliin bi sifatin amma mooy ci côté bu global loo nga yaakaar ne yow amoo ca paar rek wala amoo ca loo war a taxawee su boobaa xamal ni amaana sànku na te yonent bi saa salaam nee woon na su amaana sànkoo rek xamal ne yemul xiyaam ma ngi bëgg a ñëw waxin la mooy xamal ni lépp yàqu na kon lu mel ni wor ak ñàkk am responsabilité ci la ngay def wax dëgg yàlla wane ne ni jikko ji dafa ñàkk solo lool waaye ñàkk sellal ndax bëri na nit li muy jëf loo xamante ne ni li ko indil jafe-jafe bëgg dëgg ni ko ulama ul islam di faral di waxee ku mel ne al imaamul buuti rahimahullah dani al muslimuuna bi xaajatin ilal ixlaas nee na boo xoolee problème mu julli ñi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy aaja wooguñu aaja sellal ah faqsud bihi wajhal jalili yaa fata de la cheikhuna cheikh Ahmadu Bamba mooy lépp looy sàkku moo xam xam-xam la moo xam ci mbirum àddina la kii moo xam lu mu mën di doon nee nañ ca jiital al ixlaasu taam ca sellal googu naa cheikhuna cheikhul moo ko may lii mu am ba tax yàlla defal ko xabul ba lépp lu laal ci moom rek nekk tawfeex baraka kon nekkate eh, ñàkk a seetlal bokk na ci li nga xam ne foo ko gis rek ñàkk seeral seetlal gi nag dana bari lool ci côté yu baree bari yoo xam ne sax jotaay bi du mat ñu mën ñu koy wax waaye foo ko gis rek xamal ni maanaam eh, jikko yi muy yàqu ndax ki tamit wax dëgg yàlla li wacc xaalisa li wacc laahi la war a def lépp lu muy def ndax loolu mooy li nga xam ni mooy an nihayatul tàmma mooy eh, mujjantal gu rafet gu am solo gi ndax nit moom ñaare boo ko defalee mën na laa bañ a fay li nga xamante ni moom nga ko defal waaye soo ci jubloo yàlla subhanahu wa taala rek dina nekk loo xamante ni nii ah ñaa ala kulli xaal eh, da gañe waaye li ñuy wax eh, lu am solo mooy li ñuy wax an nifaaqul ijtimaai yi mooy société bi léeg-léeg dañuy gis lu jaaduwut ñu xam ni jaaduwut waaye dañ cay kompoloo mel ni bëgg na bëgg a wax ni jaadu na den ko jéem a daganal wala ñu jéem koo reconnaître wala ñu jéem koo nangu ba ay chaklin te loolu lu ñu ci mooy seen i euh, personnel la ñuy xool wala am lu ñuy ragal wala yu mel noonu loolu lépp dafay dëxañuwaat duggaat ci ñàkk a kon dafa mel ni euh, benn tomb la boo xam ni euh, baat bu xorobu la ñu koy tudd mooy an nifaaqul yi mooy dafa mel ni société bi léeg-léeg day amul nifaaq goo xam dañ ciy kompaloo loolu foo ko gis rek xamal ni jikko yàqu na xeet waaye bokk na ci phénomène yi nga xam ne foo ko gis xamal ni jikko yàqu na mooy jël alal def ko muy gaaya fii kulli shay'in mooy alal daal mooy liñ koy ñenn ñi di waxee ni abra abrado laay wut rek wala boog maanaam al wasila al gaayatu tubarrirul wasila mooy fa ma jëm daal moo am eh, li ma bëgg daal naa fexe ba am ko ak nu ma ko mën di amee di qaayida boo xam ne faa faasida la mooy eh, ak boo xam ne baaxut mooy al gaaya laa tubarrirul wasila la ñu war a wax mooy fa nga jëm du tax nga ni bëgg lu baax bëgg ni nangam laa bëgg lu tax nga ni nu ma ko defee baax na déedéet alxaaya euh, laa tubarrirul wasila ñoom nag léegi dañ koo aks dañ koo safaane dañ alxaaya tubarrirul wasila man daal nangam laa ci jublu woon kon nu ma ko mën di defee rek baax na loolu foo gis rek xamal ni euh, jikko yàqu na te itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni euh, ku am man lu baax dana ko gaaw def ndax bés dina ñëw boo xamante ni alal dootu jariñ dara monnaie yi ñuy jëfandikoo dina nekk loo xam ne xëy maanaam maanaam intahat salahiyatu salaaxiyatuhu mooy day dem ba maanaam primé ndax bis la boo xamante ne nii te mooy yamal xiyaam ak la ca aju ah jëf ju baax joo daaroon fii ci àddina rek moo la mën a jariñ waaye du leen loo xamante ne leneen la waaye tamit ñàkk a yëg jafe-jafe bi nga xam ne wala rëyaay gi wala diisaay gi nga xam ne am na ci moyteef gi maanaam soo gisee doomu aadama yi wala nit ñi wala nit wala ku mën di doon di oyofal ak moyteef wala loo xam ne jaaduwut mu yàgg mu yaakaar ni du dara nga xam ne su waxee sax loo xam ne lii ak mooy def gu rëy rëy la day mel ni nit ñi sax ay ree lañ koy def wala yu mel noonu maanaam ñàkk koo rëyal ñàkk koo jox dayoo ba nga xam ne moom am xamal ni foo ko gis rek xamal ne jikko yàqu na yaxeete yaxeet ndax xol yi yow ñooy xol bu wow nag mooy li nga xam ne mooy gën a wane ni jikko yàqu na kon waa suufiyee nag jox nañ ci ay leçons yu bëree bëri ndax ñoom maasiya ak mooy lu mu tuuti tuuti rek dawuñu ko xeeb moo tax dañ daa wax ñoom naan ñun sax bu buñ musaa mooy yàlla lu mu tuuti dañ koy xam ci suñ daaba ji fas dañuy gis ne day day am nu mu doxal ak ñun nga xamante ni maanaam ñàkk sell gu ñu sell tax na lu ndaw lu def lu mu tuut tuut rek mu feeñ ci seen tasarafaatal xaas sa kon ndekete isti adamu istichaari kibaril maasiyati mooy ñàkk yëg ni lii lu garaaw la loolee foo ko fekk rek xamal ni société bi yàqu na wala jikko yi bokk mu ngi yàqu bu baax a baax lu mel ni jikko yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dañuy fekk soriwut ci ñun duñ nekk ay jul ay jullit dëgg-dëgg lu mel ni kiñaan lu mel ni rambaaj lu mel ni li nga xam ne mooy safaanub li ñu tuddee makaarimul axlaaq ndax daa mel ni ba mu koy wax ci xasida gi la ni dafa andi sart maanaam lii fekk amul rek man bu ñu sëriwut tabaaxut sëriwuñ ay xeeti tanaafur ak mbañanteeg yu mel noonu suñ ko sëriwut rek duñ mën a nekk jullit kon charte la maanaam euh, waxin wu la waxee foofu moom Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa mel ni mooy dafa mel ni mine charte mais shurutul asasiya li an nakuna minal muslimin mooy ñu sori sifaat zamima yooyu noonu mooy jikko yu bon yooyu nga xamante ni day wane jikko ju bon waaye tamit euh, islam dafa nekk diina joo xamante ne nii li ñuy wax sulukul mujarrat mooy comportement bi nii kese ci kaw da ko dul soxla waaye da koy soxla mu nekk ak loo xam ne dañ koo togge dañ koo taxalli dañ koo laytaaye dañ ko euh, wodde ay jikko yu rafet loolu moo tax mabda'u taxliya wa taxliya nekk ci waa suuf suufiya te Serigne Touba joxe ci ay leçons yu bëree bëri bëri bëri bi ci gën a euh, kii rek mooy atarbiya bi ruux bi mu doon def tarbiya ruuxiya da koo defoon ñi nga xam ne ñoom la topp ñoo ko toppoon ci wàllu defar seen i jikko bu baax a baax a baax bu nga xamante ni bépp comportement bu ñuy def rek dina rafet rafet goo xamante ni sax ngir sàmm gañ sàmm ndax sàmm comme ni ko borom xam-xam yi waxee mooy nga sori lu araam ngir nga bàyyi lu dagan ngir ragal a tàbbi ci araam. bàyyi lu dagan ngir ragal tàbbi ci lu araam tarbiya ruuxiya boobu la la Sëriñ Tuubaa defoon xibaaru murid mooy ñi ko toppoon ci di ay murid yu wér a wér te mooy ixsaan bi mu andi rek ndax ixsaan mooy suufiya bu sell bi nga xam ne mi ngi min ladun rabbi min ladun nabi sallallahu alayhi wa sallam ila jilina haada mooy li nga xam ne mooy li looy man di wax suufiya mooy ixsaan mooy rafetal te mooy asu tasawuful islaam yi bi nga xam ne mboolem ñu jëloon yéen mën a mën a xëj yaakaar ne mooy mën a bu baax ba dem nañ ba dil dellu siwaat ci tasawuf daa ci jox ay misaal bari na ay réew yoo xam ne dañoo taban nii dañoo jëloon benn mazhab yor ko boo xam ne dafa dem ba indi leen ay jafe ñu wëlbatiku ci jamono yi rek wane ni maanaam wàllu lañ nekkoon daal du lu baax ñu ni dippi eh, fanweeri at nii daal nekkoon nañ ci ay jafe-jafe yoo xamante ne nii li ñu ko teg lu leen lu may tataruf gu ëpp ak parparloo gu ëpp ak ñàkk naturel Euh, suufiya nag ak ixsaan bi nga xam ne mooy indi jikko yu baax ci Sëriñ Tuubaa yar ci ak njabootam loolu mooy li nga xam ni mooy taxalli bil axlaaq ba pare jëm koo roy nag bi tarbiya bi ruuxi mooy fexe ba defar ruugi bu baax a baax Yonent bi sa alayhi wa sallam daane wax ni ki gën a bëgg ci ki nga xam ni moom laa gën a bëgg ci yéen de te te moomay gën a jege yowmal am mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon ñu seetlu ni mooy dellu ci li ñu waxoon léegi nag mooy xaaye fil islam waxaat na ci benn xadis ni amul lenn lenn lu gën a diis ci balance yowmal qiyaama ci xusnul xuluq maa min cheyin afxalu fil misaani yowmal qiyaama min xusnil xuluq yaakaar naa loolu kon suñ ko gëmee noonu ko yonente bi waxee dina tax ñu xam ni islaam fu kawee kawee teg rafet jikko waaye jikko yi comme ni mu nekkee loo xamante ni dafa nekk fondement boo xam ne mooy tax xeet bi des fi maam des fi bu ñu ko waxee xëy na kenn du fi des waaye waxin la mooy mooy tax li nga xamante ni mooy suñu rôle ñu man ko def moo tax ah, ah, shawqi yi nga xam ne ab waykat la daana wax naan wa ida usiba al qawmu fi axlaaqihimu fa aqim alayhim mataman wa awila leen soo demee bi nga xamante ni am nañ crise de valeur bépp société boo xam ne am na ko nee na mën nga leen a tàgge saraxal leen te xam ne faatu nañ ida usiba al qawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim mataman wa awila nee na mën ngaa yuuxu jooy wutal leen ab dëcc xamal ni ñoom faatu nañ kon ndekete li tax ab société des fi yor turaas bi mooy héritage yi ñu bàyyee pour ñu ko bëggee sàmm léeg nga dégg naa lan héritage Sëñ Tuubaa lan mooy héritage Sëñ ko bëggee sàmm nañ fax foog ñu defaraat jikko yi dellu ci taxaalim yi nga xam ne moom la andi woon te daan ñëw ci kanam yàlla subhaanahu wa taala mi ngi naan wa isaa aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasuqu fiha fa xaqa alayhim qawl qawlu fa damarnaha tadmiran ah loolu di lu jar a bàyyi xel aaya bi dafa wax ni su ma bëggee ci man si sama coobare su ma bëggee toroxal aw nit wala aw xeet dama jël mutarafiha mutarafiha mooy way xeewu ca xeet woow mooy ñi nga ñi ñu tuddee fi waayap yi ñi nga xam ne daal jot nañ ñoom ñooy kilifa yi wala ñooy ñu gën a am ñooy ñi ràññeeku ñu daal nee na dama lay def noo xamante ni taraf day feeñ ci ñoom waaye li yonte waxoon ci hadis bi ni dañuy dem ba maanaam euh, am na mandarga yu bari yu mu wax ci yéeme nee na sax dañuy dem ba daal boo leen gisee daal yazharu fihim saman dañuy dem ba funki ci côté yëpp nag maanaam daal euh, yàqu goo xamante ne nii dañ koo yàqu lool euh, tax ñu dem ba fuuy li ñuy wax fuuy daal yàlla li mu bëgg a wax ci aaya boobu mooy su ma demee ba bëgg a toroxal aw ni damay fooyal ñañ jaakaar ñoo ay kilifa ci ñoom bu ñu fooyee nag def la ñuy def nag ma andi sama dogal nag daal leen al maanaam tadmir mooy ma bombardé leen ñoom ñëpp ñu yàqu te loolu li mu waxoon mooy na ngeen ragal fitna joo xam ne du yem ci bopp borom waaye ci ñi nga xamante ni ñëpp lay matale kon dafa mel ni euh, li ñu ñi ñu tuddee kibaarul qawmi wal usama aydan lahum dawrun kabir fi taxyiiril mujtama wa fi dirasatihi mooy am na rôle bu réeree ci sens société bi ak jàngat liñ liñ nekk ndax ñoom tamit ñoo mën a orienté nit ñi comme ni sëriñ Mbàkke bu sa waxoon ca bayit ba ci bànnu balla fa in tarsudu yasud fi amun bi rusdikumu wa in taakisu yafsud ulufun durubi nee na yéen kat yéen ñi nga xam ne su ngeen jubee ñëpp waaye su ngeen yàqoo ñëpp yàqu kon nag loolu mooy aaya bi nga xam ne dafa wax ni waa ñi nga xam ne ñooy ñekk ñekk ca kaw bis bu ñu fàttee seen rôle rek ah su boobaa nag dama daa dem jikkoy daal di yàqu nag su ko defee nag ma indi sama dogal ndax loolu mooy machi at tàmm mooy coobare ji ma sëkk ndax moo ko jaarale foofu kon daal dafa mel ni jikko moom dafa nekk loo xam ne bokk na ci sabab yi nga xam ne day def tax ak cofeel am waaye tamit day soriloo ak ak mbañeel loolu ku ne xam na ko ndax euh, alxuraan karim dafay wax ni wala tastawi al xasana wala sayyi'a lu mu ca teg idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim yaakaar naa Serigne Touba dafa mel ni dafa taj siit dafa dafa moo wane aaya boobu noonu aaya bi dafay wax ni lu baax ak lu bon du njam mukk ki nga xam ne dalaa noonoo def ci yow euh, maanaam di la jëflanteeg yow ci jikko yu bon yow dee ko wan lu rafet rek day mujj nekk ruxman anhu ci far force day ni mujj nekk sab xarit ka annahu waliyun xamim dafa mel ni Serigne Touba benn principe bu am solo ca jikko joo xam ne sang dëgg ko mën a am mooy al afwa indal maqdura mooy dem ba jekku sam noonu jéggal ko afawta anil aada yaakaar naa ni kooku kon ah, ah, waaye bokkut ak ñun ñi nga xamante ni bu la nit tooñee da ngeen xaaral ba ba jekku ko waaye kii jekku ba pare daay jéggale loolu loolu loolu manzila bu kawee kawe la boo xam ne nii ñëpp mënuñu ko am te mooy aaya bi Sëriñ Tuubaa mel nii da koo wane ah kon nag loolu jar naa bàyyi xel su ko defee dafa mel ni yowmal xiyaam comme ni ma ko waxee woon léegi ki nga xamante ne nii faatu na dana mbébét bu dellusi woon ci àddina ab laxsa rek ngir def lu baax nga xamante ne nii bëri na loo xeeb loo xamante ni li ko Sëriñ Tuubaa waxee ci ay téeréem nga muuñ ci sa kanamu mbokkum jullit rek loolu rek maanaam euh, ab sarax la rawatina da nga koy bernee la comme li nga xam ne mooy turaasul muriidiyya ku ku leen xam xam berne ku leen xam xam maanaam lu ñu am jafe-jafe ak lu ñu mën di mel rek day ko xam ba day xëye këram ànd ak xumoomun kabira ay njàqare yu bëree bëri waaye boo dajee moom li ñu def mooy atabasum muuñ ak pësteef bu rëy rëy rëy kon kooku dafa raxas jikko yi mu nàmmu xol yi ba nga xamante ne nii daf lañ koo paase loolu yaakaar naa na muusaj la boo xam ne fii xar bi Afrique ak ñun rek ñoo ko am ñun waa Murit ñun waa Serigne Touba kon jërul ñuy jëggaane fenn fenn fenn fenn di xool ci kan lañ mën a roy ci jikko yu rafet ndax am nañ ci ay exemple yoo xamante ni yaakaar naa ñi toog fii rek kenn ku ci nekk rek euh, boo waxoon leer na ñi nga xam ci ñu toppoon Serigne Touba moo xam sa maam la moo xam keneen la doy na sëkk ay leçons yoo xamante ni pour defar suñu jikko kon am nañ ay royukaay ci côté boobu laa bëgg a wax kon euh, waykat yi daan nañu wax naan ab taar nekkut ay yére yu ñuy rafetal waaye ab taar mooy jamaalul ilmi wal adab ah Sëriñ Tuubaa lu mu waxoon kanzul kitaab wal jam xo fidatin wala moo tax dafa mel ni toujours rek euh, bu ñuy cité rek mën nañoo cité Sëriñ Tuubaa ndax maanaam loo loo sori sori rek da ngay dellu si waat ci mu tënkal la ko ci benn côté kon yaakaar naa rafet bu dëgg-dëgg mooy ca sitrul maanawi mooy nga defar sa biir dafa gën a am solo ci defar sa biti loolu moo tax waa suufiya xaw a xaw a xaw a maanaam doyadal biti ca yitte woo bu eh, ruux ba ñenn ñi doon leen ci dal waaye mujj leen xam ne lool moo am solo ndax yaa bani aadama qad anzalna aleykum libaasan yuwaari sawaatikum wa riishan wa libaasu taqwa zalika xayr aaya bu leer nañu la mooy wutal naa leen loo xam ne ci seen i jumtukaay mën ngeen ci suturlawu ci kaw nii mooy yére xew yeeg yu mel noonu waaye wa libaasu taqwa yére biir sutural biir zalika xayru alxuraan nag lu mu gën loolu a gën nga xam ne ay aaya la yoo xam da nga koy romb doo ko seetlu sax waaye boo demee ba xoolaat ko bu baax xam ne li muy wax lu wér a wér kon bokk na ci asbaab yi nga xamante ne nii eh, dina jooxe nit ci mu rafet ko mooy mu fexe ba ab pas-pasam mucc pas-pas ba mucc nag dafa jafe lool ci jamono ji ndax da ngay nit gis nit koo xam ne dafay commencé di am lu mu fas kële ñëw rëng-rëngi ko kële ñëw rëng-rëngi ko kooku nag nan lañ ci nan lañ ci Sëriñ Tuubaa musale mooy dafay teel a jiitu ci xale bi teel koo tàmmal lu baax di ko def tarbiya bil ishaarati maanaam suñ ko mësaa andilu nit koo xam ne ci biir kër gi la nekk du ko wax dara da koy bàyyi noonu rek muy gis maanaam Serigne Touba daan nañu wax naan comme la atbaaxul imaam al xasan daa xasan al daa wax ni mu jara du ñu nekk ak imaam al xasan taallam naa minhu al adaba qabla al ilmi wa samta qabla al mazhar nee na dañoo dañoo dañoo jàng ci xasan maanaam comportement bu baax njëkk mu ñu jàngal xam-xam dañoo ñëwoon di jël si xadis ci moom waaye leneen la mujj jël sax ñun far afan ñu jël xadis Sëriñ Tuubaa nag tarbiya bi bil ishaara boobu noonu mooy dalay junju rek waaye ca loolu borom xam-xam yi Pythagore si wax nañ ni moo gën a mën a def effet ci xale bi mooy wax ji daanaka jur muy bari waaye dee ko wan rek muy gis kon Serigne Touba bokk na ci liñ mën a jàngale ci ni mu doon yaraatee fur jikko yu baax mooy day fexe ba lam bëgg mu jiitu la ca ca loolu ma ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Madina Munawara bu leen doon liggéey loolu mu def daa ànd ak ñoom di liggéey jumaa ja jékkati birig yi ba saxaaba yi di way naan la in qaadna wa rasulu yaxmalu la zaaka minna al amalul mudallalu cey kii di xayru rasuli xayrul xayrul bachar ñu ñuy liggéey mu ànd ak ñun di liggéey ñun de buñ toogee rek xamal ne ñun de sànku nañ kon ndekete nga fexe ba wan nit ki mu gis at tarbiya bil bayaan ahsan wa a wa asrah min tarbiya bil bil maqaal mooy nga ñeer la ci wan la rek dafa gën a gaaw ci Sëriñ Tuubaa nag kooku da koo woo moom da ko xas wala ci moom ab ciram la mooy dara daa wan mooy bokk na ci li nga xamante kon pas-pas bu mucc dafa jafe loolu moo tax euh, ci ci bay na xaw say ni rek li nga xam ne moo xew léegi ci diggante wàllu tawxiid ñi naan pas-pas bee baax ñi naan pas-pas bi ñëpp waa suufi ya amoon benn mazhab boo xam ne mooy mazhabul ashairati te mooy pas-pas bi fi jiitu te sëriñ Mbàkke bi sa taarif ci téere bu ñu wax amaanul balit doon naa wax barki démb rek indil euh, na solution xale yi nga xamante ne nii dañuy jëggaani leneen lu bees ñëw euh, bëgg koo tatbiix fii ca mu wuuteeg waaqul xaal waaye li ci xorom rek mooy li ñuy wax suxriyatul qadar laa ko ba tudde ñoom ña ne woon lee baax ñoo wëlbati ni nii baaxut bëkk démb rek maa ngi saa benn congrès ci réew yooyu ma lay tudd euh, ñu ni euh, depuis 1960 ñu ni ñen ñoom daal dañoo nekkoon ci am mbir ba mu yàgg 1979 ba léegi ñu indi lu bees loo ko nekk kenn lu mu doon te mbir mañ nekkoon lañ bëgg a dellu mooy suufiya bu baax ba ñu nekkoon ak islaamu nekkoon ci lañ bëgg a dellu mooy aqida ashariya bi nga xam ne moo fi siiw ci mag ñi te ñenn ñi jëggaani boo ñëwee ñun la aqida boobu baaxul waaye ñun fekkoon na ñu samp ci ñun aqida boo xam ne mooy bu wér am solo la bokk na ci liy tax jikko yi baax tamit mooy mujaahadatu nafs mooy nga jihaat ak sa bakkan ndax mbir mi tamit leena du neex ndax euh, lu baax daa yombut euh, ne ko waykat ba waxee rek ne bakkan daa mel ne xale nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaahi wa in taftimhu yanfatimi na bakkan mel ne xale soo ko bàyyee woon tey jii muy nàmp day nàmp ba nekk mu jëm waaye bis boo ko feralee rek mu fer kon lazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal muhsinin ah kon daa mel lu baax nag du yomb nag li fi Sëriñ Tuubaa waxoon ni oo oh, mbokk waaye li li fi nekk day jaay loolu mooy li am solo kon muhaasabatu nafs tamit bokk na ci te loolu point fort la ci waa suufiya mooy nga toog rek di di xool yow ci yan maanaam foo jaar ak li nga defagun ak li nga ronkal te comme ni nga xam ne ab ba ngoon jot day def amaliya xisaabiya dafa mel ni bépp jullit bu bëgg ay jikkoom baax loolu foog mu bàyyi ko xel sama kaas gi dañuy tërëri rek te duñ duñ toogaat ñaari minute rek xalaat seen bopp muhaasabatu nafs te loolu dafay dafay mabda bu am solo ca waa suufiya loolu lañ gañee ñëpp mooy dañuy tuumaal seen bakkan fu ñu toll di ko mu xaasaba fu ñu toll fu ñu toll ñu ñuy jaakaar ni sax maanaam man si la baynal xaw fi war rajaa la ñuy nekk léeg-léeg ñu xaw tiit lool waaye nag delluwaat ci rajaa ullahi subhanahu wa taala kon daal foog léeg-léeg nga toogaat nag jàngat càmbaraat mbir mu xaasabatu nafs nag muhaasabatul mujtama tamit da ci dugg mooy demi société bi ci boppam tamit ñu toogaat xoolaat seen bopp comme ni ngeen def nii di xool ay thèmes yoo xamante ne nii jort nañ ni maanaam société laaj na ko ñu waxtaan ku ne gisaat ci sa bopp muy man muy kaneen loolu lu am solo la te dafay dugg ci muhaasabatul nafs bul yaakaar ne yow kese la waaye même bi si fa am mooy société bi ci boppam dafa war a muhaasaba ko defee nag di xalaat ci maanaam njariñ yi nga xamante ne nii loolu am na ko xam naa ñu wax ci ñu gën a gaawal kon. waaye kon sori ci naagu nag maanaam di nga gis nit koo xamante ni ni dafay wax ni man daal daa mel ni damaa nekk nit koo xamante ni moom góoma ni dinaa baaxati déedéet maanaam ci ko waxtu laajoon ñu wax ko exemple boo gisee gis na nit koo xam ne moom charru naas te mujj na nekk ahsanu naas xool ko ci saxaaba yonente bi yar rek maanaam nekkoon nañ ci mujtamax boo xam ne mujtamax boo xam ne ah maanaam mujtamax jaahili yi la bu ñu jaahili rek doy na sëkk te ni leen yonente bi yara bu muy nekk ahsanu naas kon loolu xool ko Sëriñ Tuubaa ak i noonam kon loolu dafa mel nit wërta maanu ak li ñuy wax al if nit dafa a maanu nit a wurta naagu ak li ñuy wax al iffatu iffa mooy fegu dama ci xaw say ni diggante jigéen ñi ak njaboot gi maanaam bëri na façon dundin wax ne ñu ngi dund ci suñu mag ñi sax jàngaluñu woon loolu mooy ci ni ñu daa ni ñu daa daggee seen kër yi ak ni ñu jaxasoo ak yu mel noonu façon jaxasoo bi ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax fexee li ñu wax al iffatu ndax yeneen Sëriñ tubaax na ci ay xasidaam nii jigéen balaa mën a am diine foog mu am ay iffa walan tanaali diina hatta tasturi jismaka yaa Zeynabu bi taxamuri suba juumul ca saadu tulaab noonu la ko waxee woon mooy foog ngay muur saw yaram foog nga ef kon dafa mel ni bokk na ci masaahir yi wane ni maanaam jikko baax na mooy nit ki nekk koo xam ne dafa ànd ak lu ñuy wax alay fa xam naa dafa mel ni du mën a àgg lépp lépp ndax daa mel ni dañoo kii ca li ma waxoon tax daanaka xaaj bi ñëwagut waaye xëy na ci tënk rek eh, des na wax ni daal nañ xam ni bokk na ci ay njariñam moom jikko yi dafay far ay bàkkaar bokk na ci ay njariñam day tax yàlla bëgg la ak ñu baax ñi bokk na ci ay njariñam tamit mooy da ngay am maqaabu saami mooy eh, daraja bu kawe kawe bokk na ci ay njariñam mooy dafay diisal say balance yawmal qiyaam bokk na ci eh, li ngay xamee ne jikko baax na nag mooy bu ñu fonkee waajur yi mooy topp ay ñaari waajur ak yu mel noonu ak xidmatul mujtama comme Serigne Touba nag moo ñu indil xidma moom kon nit koo gis rek xayru naa si xaadimuhum képp ko gis moo oyofal boo xam ne xidma mu ci sama bi rek xabal ni bokk na ci li gën a wane ni jikko yi muy baax loolu nag yaakaar naa kon murid yi moom foofu xanaa gën a góorgóorlu rek waaye am nañ ci point fort bu rëy rëy rëy waaye bokk na ci jikko yu baax li muy indi société bi mooy dafay indi sécurité dafay indi sécurité ak day tax istiqraar day am mooy stabilité dafay am ci société bi te itam dañuy sori lépp loo xam ne ak wuute la boo gisee murid yi ni ñu nekkee benn kalima loolu seen jikko yu baax yi nga xam ne moom la Serigne Touba euh, sol ci ñoom moo tax ak ruuxu tasaamuh mooy dafay am tolérance mooy ab murid mën naa jaxasoo kuré li ko waral mooy jikkoom dafa baax xolam dafa laabir xolam dafa set waaye kan képp koo gis tamit mu yittewoo njaboot ak société bi ak ñu ndaw ñi ak xale yu mel noonu comme ni ko Serigne Touba meloon yar ko ci ak njabootam Cheikh Saliou Mbacké ñeneen Cheikh Chouaïbou loolu yi foofu baax dafa ndax ñooñu ñooy ñi a euh, ma na waaye na borom xel kon daal Serigne Touba ak i jàngatam ak i lim wane ak ñi ko topp wane nañ ñi buñ waxee lañ ñu def maanaam Masaalikul Jinaan donc bu ñu ko jëloon doy na sëkk ci maanaam taxyirul mujtama mooy sensé société bi nga xam ne ilal ahla wala ilal ahsan waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah kon mbokk yi ñuy seetaan dégg ngeen waxtaan wi duñ ci commentaire dañuy sant rek ci taxawaayam ak yitteem ci noonu ñu yaakaare woon ne noonu la koy joxe rek noonu lañ rafetoon jot ci moom kon nañ ñu koy sant baax di ko ndokkeel moom Serigne Cherif Bousso waaye li ci gën a am solo rek mooy. ñun fi ñu nekkoon démb ñu di ñu xeeb ci pas-pas ci jikko foofu ñooña ñoo deltuwaat ginnaaw dellusiwaat taxaw ci suñu garam na yéen kat ndekk yéen nekk ci dëgg di wut solution pour ñu ànd ak ñun dem kon loolu mooy moo lay wanal na ne li fi mag ñi bàyyi woon rek dara dara gënu ko te loolu mooy li baax te loolu mooy diine xam-xam ngor moo ëmb lim doon wax lépp kon nag ñu sant ba lu baax sant euh, Cheikh Sidel Muxtaar mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi euh, sant sëñ Mountakha mi nga xam ne mooy jëwrinam ak itam jëwrini màggal Touba gi muy Cheikh moom Bachir nga xam ne liggéey bi ñuy liggéey ni ñu ngi ko teg ci ay e, ndigalam mooy diwaan te suñu kilifa ci liggéey bi mooy sëriñ Abo moom sëriñ Cheikh Ahmed Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ñu ngi sant bu baax suñu gana gi di ko e, ñaanal suñu borom fexal ñu aw fanam guddal e, fan wi wéral yaram bi bàyyi ko fi mu nekk njëriñ ci lislaam ak ceetu Cheikh Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wàllu si la Dramane eh, ci kaddu am solo yi nga xam ne doole ko ci waxtaan wi sëriñ bi doon indi waaye ñi ngi sant bu baax eh, sëriñ eh, Sërif Bousso ibnu sëriñ Gédé Bousso ibnu sëriñ Njaañ Bousso ibnu sëriñ Mbàkke Bousso di xam-xam borom xam bu mag boo xam ne ñu bari xam nañ ko léegi kenn laajatu ko ci yoonu yoon wi di ko ñaan suñu boroom fiq aw fanam bu baax a baax gën a yokk xam-xam ji bàyyi xelam ndax ni nga ko waxee rek lépp li doon sàkku ci waxtaan wi wax dëgg yàlla defal ñu ko ñu koy njort xanaa kay di jéggalu di jégg lu baax temps bu gàtt bi nga xam ne Euh, moo am ci diggante bi boo xoolee wax ji fi mu départ ba fi mu jëm rek bu fekkoon ne bi temps bi guddoon na ba mu gën a développé lépp rek kon yaakaar nañ njëriñ dina gën fees waaye nag euh, comme borom xel yi moom ak ñi nga xam ne dégg nañ xam nañ dëgg dëgg li nga xam ne moom la wax kon suñu sëriñ ñu ngi lay ñaanal euh, a baax nga xam ne yombal nga nañu ko waxtaan bi indi ko fii jërë ngeen jëf kon mbokki julli mbokki taalibe lii mooy li nga xam ne moom leen doon jël tey jii ci seen kuréelu diwaan fii ci kër Sëriñ Tuubaa résidence kër Sëriñ Tuubaa gi ci wetu jumaa ji kon ñu sant leen gërëm baax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala taala wa